محلا وجبت سيدني يومي دجبت بكت فرحتي خجي إنه ممرد مايك وجرنا هدانا سيرتما فلن جبل كتب الدور أكرم به إنه حقا لخير وزر بري الله لخيتك بري الله لكن لخيتك بري الله بري الله كن لخيتك بري الله كل الخلاف كل يدين القرى خلق يا بجان ايضا
jërëjëf tabaarakallahu tabaarakallahu laay jooju li mu ëmb ci ay melo yàlla dafa may Sidil Hadj Malick tasaareel ko ko ci biir doomam yi ak muqaddamam yooyu mu yaroon ñu fees Sénégal leeral ko naññi alhamdulillah fa lillahi alhamdu wa shukru wal minnatu Seydina Omar ibn al-Khattab ku mësa nekk nitu caaxaan boo ko séenee abal ko ba seytaane mbedd mu mësa dugg seytaane abal ko sëñ Babacar Si noonu la meloon nitu caaxaan mënu koo jege nitu caaxaan mënu koo fréquenté noonu la amee yitte noonu la amee dëggu noonu la aaye ci noonu tariqa bi noonu la fulla ja toll ma joxe ci benn tegtal bi Cheikh Al Hadj Malick génne àddina radiallahu anhu ci lu yàggul lool am na benn kilifa bu jóge ci penku ñëw jaale si fi muy julli jumaa mu daal di toog ci minbar ba noddulu Pap Xaaji Mansour duggul woon ca biir jàkka ja ma nga woon ca mixraab ba Pap Xabiba nga woon ca mixraab ba alxalifa Cheikh Alxaaji Abdul Aziz nga woon ca mixraab ba ca pantere ba gan gi noddulu xutba wàcc kabar suñ Babacar ngay waaj ni man de joxew ma ngànt te dafa mel ne daat bi ma dégg dala du ma ci jaaxal du baatu Seydi Mouhamadul Mansour ni ñokket ni saraax ci jàkka ji ni assalaamu aleykum sëlmal leen ñu sëlmal mu yéegaat ci minbar bi moom Sëriñ Babacar Si nodd lu waat ñu nodd mu xutba julli pare ni mbooloo mi kañ la fi Cheikh Al Hadj Malick jóg ak lu mu fi jàngale ak na ci ful la bokke lii de wóor na ma ni Alaaji Mansour nekkul ci biir jàkka ji moo tax mu am li Cheikh Al Hadj Malick jàngale kii li muy bare bare xam-xam mac hóolul xaal la ci ñun xamaluñ ko dara kañ la am sañ-sañu jiite tegaat nit ñi ci yoon wi ñu dem kër ga Pap Alxaaji Mansour ni cas tulimam ni fa waa ajaban fa waa ajaban li cheikhi laqad saluxat salaatu aljamiina walaw laahu salaata al afsaduha bi taxniitin yaumu alxaadirina aqaama bi xaznihi wa sawaabi xukmin kawalidihi fa axsanaha mubina maa ngi yéemu maa ngi yéemu ci sama mag sama xarit sama soppe sama sëriñ sëriñ Babacar Si defaraat na julli mbooloo mi xam nga ni ñoo ñooy gaaña de bu ma konteeg moom julli gi tey dana yàqu ci jaxasoo goo xam ni gi gaar na mbooloo mi waaye mu taxaw rek moom sëriñ Babacar ci dogoom nga ak atteem bu jubbam niru way juróom wa di Seydil Hadj Malick biral na ko te biral gi rafet na kooku kay ku mës a def sa loxo ci diine ji ak tariqa bi mu dal ci sa kaw yaatal naa ko ca dossier maa ngi koy jàll egsi ci pap sa xaji mouhamadul mansour radiallahu taala anhu pap xaji mansour مثل أبو بكر الصديق لتلازمه مع أبيه وشيخه ووالده كان يشافي مجنونا في ساعة واحدة طب حاج منصور بقي خال إيماج سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه مملا لي جخ كون داغنا والذين معه طب الحاج منصور أشدوا على الكفار سيدنا بابا كرسي رضي الله تعالى عنه رحماء بينهم شيخ الحاج عبد العزيز سي تراهم ركعا سجدا فضيلة الشيخ الحاج عبد العزيز يبتغون فضلا من الله ورضوانا شيخ سيدي أحمد سي سيميهم في وجوههم من أثر السجود جميع مقدميه وأولاده الكرام من لا جس الله يجي كبير كسيد الحاج مالك سرين بابك رضي الله عنه إمام سيدنا عمر الحاج منصور إمام سيدنا أبو بكر ngir takkoo gim takkoo woon ak baayam daan na wax moom borom kaala ga naan ah école Maodo da maa ci juddoo jànge ci ku dul moom nag nàmpatal nañu la ci keneen wala ci feneen moom léppam baayam
وكنس المجد والعلم فالحال ما فينا قبل القلب الحاج منصور رمبو مدينتي يا رمبو مرضى موضوع منك يا موجب القوم صوت والبيات تجد الهلوى ترتيب وخمنه du ci toppante du ci tomboo yow ñay duuga xudi tëb naw fel sootin wala baayaabe
moom bareetul loolu ga diine ji yaram boobar ga samaw doom muñ da yaa bo jibal xawmi sootin wala baayaabe aji def leen la waji man sooro man wala baayaabe boo dara foo ku fay na ma dox wala baayaabe منصور مالك
تبارك الله
ولا بايع تبارك الله جرى جن جف جرى جن جف باب حاج منصور رضي الله عنه dafa taqowoon ak papaam moo tax mu wax ni waqad raaba cheyqi qablu qalbi murabbiyan فلانت لدورات الخطوب المفاصل وزودني دينا ودنيا كفاية فأحمد ربي الله إذ هو واصل أأصحاب الشيخ الحاج مالك ما لكم تحلون حبلا أحكمته الأوائل طب حاج منصور نينا سما سما ويجور دي شيخ الحاج مالك ماما تاغاتال سما خول بي نينا ماما تربيه يرما تك ما سي يون سي والو يالا با نينا نات لو ري ري ري سما ارتكيلاسيون يي دوكو ييب نينا مو يوبال ما سي دينا اك سي ادينا لو دوي سك با ماغي سانت يالا با ما بولé كو تولني سيد الحاج مالك ku yàlla mayoon la ci anam yu bari waaye ku xaw a feebar feebaru xel moom du bind du maas papa alxaaji góor gi wàdd nee na alxaaji mbay jégal moo ma ko netti bi ay yoon nee na moom moo ko fekke papa góor gi wàdd nee na dafa am ku feebar ñeenti ponkal di ko jàppoo suba ba ci ngoon mënuñu ko téye nee na mbokkam la mu ñëw ni mun daal dama bëggoon ñu yóbbu ko ci sëñ Mansour nee na ma ni ko waaw loolu dëgg la waaye kii mën nañ ko yóbbu ci sëñ Mansour nee na ñu jàppoo ko takk ko ba dugal ko ci oto bi nee na mu ñëw nuyu ku ñuy wax Bachir Mesre nee na mu fay ko mu ni ko sëñ Mansour laa doon seet nee na mu wax ko cheikhul xaw bi nee na mu ne tëll génn daal di toog ci siis bi nuyoo jàmm sant ca aajo ji ca taar ba nee na ni ko góor gi lan la woon mu ni ko këlee taxaw de ñu di ko jàppoo dafa xaw a cile ma doon laaj ba xam lu ciy pexe nee na mu ne ko jàkk xool ni yeewi leen ko ak góor gi nee na tuut ma ni waqit waaw bi mu ne yeewi leen ko mu ne yeewi leen ko nee na ñu tekki ko waa jëni sikk avancé wul reculé wul mu di ko xool ba yàgg mu ni ko eh doo kaay nuyu ma nee na mu ñëw jox ko benn loxo mu ni ko benn loxo nga may jox mu jox ko ñaari loxo mu ni ko eggal suuf mu diju mu ne ko kon boog ma ñaanal la ba sànq ci suba biig ca ngoon waaja dara xaw doxatu ci xam naa ne sëriñ baa ngi gêné wu ci li may wax waaye dëgg la nag gu jóge ci yàlla dëgg la gu jóge ci yàlla te yàlla nu gën a jege sunu bu mu xol ñun ñépp nag bi fi waajuram Seydi El Hadj Malick jógee moom Cheikh Hadji Mouhamadul Mansour dafa tukki dem fu ñuy wax njemeer mu nga ca gannaaw ndar nekk góor gu ñuy wax amet njaay njaag yàgg ak moom yàgg ak moom jëllu si ñu defee tiwaawan la jëm mu ñëw ba pir rek sëriñ Moustapha Jamil nee na mu jàdd jubal jag saawu daa di fa campé ci benn néeg boo xam ni néeg ba amul toiture jant bi di ko tiim ngelaw li di ko fekk mu yor kurusam bu paree ci alquran ji ma nga ca dogge tariqa bi su paree ca dogge tariqa bi ma nga ca téere xadis yi suñu ko toggalee lu am ruu yàpp wala loolu mu ni joxal xale ya nañ ma defaral laa ko caaxaan dem ca loola dem ca loola ba jeex tàkk ci yàlla nee na mujj na ci digg àll bi lañ koy dégg guddi mu naan inna rijal allahi xaabu lan tanaalu lbirra xatta tunfiqu mimma tuxibu waaw waaw inna rijal allahi xubbu ya rijal allahi xubbu laysa siwa allahi rabbu lan tanaalu lbirra xatta tunfiqu mimma tuxibu kon lu amul seede baaxul loolu rek la toppoo te foofa nag ku ko fa fekk loo ko wax mu ne la demal wax ko Serigne Babacar ku ko fa fekk loo ko wax mu ne demal wax ko Serigne Babacar topp magam ja rek topp magam ja rek sës ci moom rëkk dem ca dem ca moom sa xaaji Mouhamadul Mansour ba bés mu toog ca ngaay mexe laaj ñetti andi cuuraay ñu def ko ko mu def ci ay cuuraay ba pare ne waaw ren jii de xaw ma nu may def ba duma dem màkk te xaw ma nu may def ba dem màkk Papa El Hadj Mbaye nee na ma ne ko waaw góor gi lu tax nga wax loolu mu ni biig dama fanaane wër kaaba ka ñu teg ci ñetti fan ñu ne ko wuy jil gouverneur mu ne ndax wax nañ ko sëñ Babacar ñu ne wax nañ ko ko ba pare moo ni na nga wuy ji gouverneur ñu waajal góor ga keroog baxana sol kaala woo kaala palman gu ñuul ñu dem gouverneur génn ñépp génn ñu musigal ko góor gi tàllal loxoom ñaan pour guerre ba jeex ñu waajal ko mu dem makkatal mukarrama trente neuf quarante cinq toll ci quarante ans mu sidi xaj mouhamadul mansour radiallahu anhu aj ajam gu sell ga fa lamma danaw na min sana albadri wanjala لنا الستر حتى زال من الوجد ما بي رسول فلما حميد دنونا من سنى البدر والجلال نسيت حتى زال من ولد ما بيا الحاج منصور نانا رضي الله تعالى عنه وارضى النبي رسول حميد حامد ومحمد نبي سما فوق السماء كيد الساميه هو الدوحة العظمى يظل بظله يمن بلا من وينفي المعاصي هو المنتهى مجدا وفخرا وسودا هو المرتجى يوم يشيب النواصي واول من لبى لست بربكم ويأتي على احمد صلى الله عليه وسلم والروح والرحمن وكان مناديا وكان نبيا بي نبوة عالما وادم بين الماء والغيرها
waaw ñu lay julli gi lañ bëggoon joxe te ñëw waaye sëñ bi nee na naa ko eggale dama xamul nekk waaw li- tur bi li ma jële partout la wax xam nga dama jël Pape Sidi Ahmed wax ci ni la yaatal naa ko ci dossier am maanaam bu amee suivi ngay xam la ca des jël sëñ Babacar wax ci ni la yaatal naa ko ci dossier am nekk ci Pape Hadji Mansour mu ni naa ko eggale ñu dem julli ji te ñëw bu ñëwee rek tëj ci ñetti kilifa ci muqaddam yi ñi ci des kenn ku ci ne ñu xam ne am na dossier spécial waaw Pape Hadji Mansour radiallahu anhu aj ajam nga ci ndigalu magam ja ñibb si toj fu ñu naan kër paate xewe foofa ba mu fa demee dafa fekk benn barab boo xam ne dañu ne ku ko bay dee waaw mbay dee lañ ko tudde woon mu ñëw ni nañu ma ko may ma def ko tool ñu ne ah sëriñ bi da xanaa yaram bi dafa xaw a kii tey fii ku ko bay dee waaye booba dañoo réere ne Cheikh Al Hadj Malick bu daan jàngali jinne yi góor gi Alioune Fall lay àndal ak moom Cheikh Al Hadj Malick bu daan jàngali jinne yi waaw bu nit ñi pare te loolu ku ko contesté déggaloo sunna si incha allah Mouhamed defal na conférence jinne ya ku ñuy wax saam moo leen jiite woon ak haam ak hiim ak yaafis ak naaxis Seydi El Hadj Malick radiallahu anhu wuutu gi mu wuutu yonent bi dafa wér péng moo tax bu nit ñi masaan pare ci cours yi mu dem ci jinne ya Hadj Malick jógee na fi sax di jàngale bu ñu demoon ca dossier sëñ Hadi Touré léegi nett li na ni Seydi El Hadj Malick moo ko jàngale ilmu nujum gannaaw bi mu fi jógee te ba léegi sax Maodo ngi joxe cours ah ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون سيدي حاج مالي الشهيد لمارتير لتمارتير دفعته نعم طب حاج منصور نيان فوفا ñu may ko ko sëñ Moustapha Jamil neen benn dexa nga fa woon ay jësit ne ca lu ne ne ca nee na mu xëy rek ni Moustapha dem leen sangu ji ci dex gi waay nee na nu xoolante ni ko waaw jësig yi nag sëñ Moustapha ne ma jëkk a plongé nee na jësig yi duñu romb dan laalu leen mu bay ko bay ko bay ko ba nawet ba toll ci digg rafet mu dugg oto moom Pape Hadji Mansour dem seeti ko fekk fa ñëwoon fu ko bay dee mbay mi maase àll bi na tax mu xool ko ba yàgg mu ne afil basir poti غير الله معبود بالحق ام في السماء للغير موجود mu ndax am na ci monde bi ku ñuy jaamu te jaamu gay dëgg ku dul yàlla wala mu am ci asamaan ku ñuy fekk muy buur te kooko du yàlla fii ngeen doon ragal yàlla rek laa la fi jëlee jinne yi subhaanahu wa min ilahin واحد صمد له بقى وثناء فيه تخليد góor gi ma seer gaajo mi jur góor gi ñu goon gaajo tey gis li pap xaaji mansour def mu ne ah kii da ku yeex ñàkk place man da dem naa pap xaaji mansour jóge fa dem casamance seeti shérif bachir shérif bachir seen ko song ko fóon ko ni ko xamal ma kuy sidi haj malik mu ni ko noo fa bokk yaroondoo mu ni ko waaye yaa ma ci ëpp xam-xam mu ni ko ma wax la ko ci arab wala ci wolof mu ni ko arab ma gënal mu ni caske itam ni ayaaman yaroomu shafaa ak saqam wa xuliyan min allulu ilmuntazam bi axbaari cheyqi ruwaydan fasal xabiran summa qul li naam fa cheyqu almurabbi almuraqi almudarris alulum alshahir alalam yow mi bëgg a am médicament boo saafarawoo ci sa feebar bi bëgg a xam kuy sidil haj malik wala nga bëgg caqu jamaa boo takk ci xam sidil haj malik bàkk nga njaak laaj nga ki xam xabaar bi xabaar ba ba mu daanelee Cheikh Ousmane Fodi nuyu ko xool ko ba yàgg mu ne hal baana badrun kasaahu bilbaha nuuru am barqu saariyatin yaxshaahu day jooru am durru yamin taxallaa jiida gaaniyatin biha yucatiruha miskun wa kaafuuru بلا أتانا سليل الحاج ذو كرم منصور من هو من مولاه منصور daf ne moo weer moo fi ñëw wala nelax bu jóge ca asamaan moo feeñ wala lan la wala jigéen ju man boppam ju dul fowe boppam moo takk ca xam ba pare muuru tuuroo parfum ni aha kay doomu Seydi El Hadji Malick bi ñuy wax sa Hadji Mansour moo ñu gane si kooku daal mooy ka boromam dimbali sëñ Babacar gis way wi ni Mansour daal Mansour min indillah Mansour daal ku ñu dimbali la mu jóge ci yàlla loolu laa ubbi woon ci lenn dossier am yaatu na ci biir nu julli te ñëw tëj waxtaan wi jox sëriñ bi kaay xale lu góor bële borom sax waaw ci jonkam waaw def naa kooku
asan ñi ko
ku la ko wax allah allah ku la ko wax ku la ko wax صليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدا المختار في القدم صليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا المختار في القدم صليا يا إلهي وجزيا أبدا نلعنا محمدنا المختار في القدم صليا يا إلهي وجزيا عبدا عنا محمدنا المختار في القدم نالنا آمنة بنت وهب ابني عبد مناف ابن سورة أم المصطفى العالم وجزيا عبادنا محمدنا المختار في القيم هيا انقلاب وقل في انتصاب مالا أتكى تنقيل هند الأم وهبه هيا انقلاب وقل في انتصاب مالا أتكى تنقيل هند الأم يا ابن كلاب وقل دين تساب من آتك تنقيل هند الأم وهبهم يا ابن كلاب وقل فيم تساب ما أتك تنقيل هند الأم وهبهم فلا إله غير ذلك ألا كان سيد قومي كما جاءنا فردا لعصره لا لا لا غير ذلك قالوا كان سيد قومي كما جاءنا لقيت واجئكم موضع غير ذلك قالوا كان سيد القوم كما جاءنا بردا لعذاب لا لا لا غير ذلك قالوا كان سيد قوم كما
fa tabarakallahu ngeen baal ñu kenn néegu ko sax a dagg waaye waxtu yi moo xat te nag ñaari xaaj la benn boo ci gis da nga naan kaamil la nee na ñi nga xam ni ñoo yoroon jury ba moo seulement dañu koo may mention honorable waaye ñun ñëpp dañ leen yéemu ci dund Seydil Hadj Malick ak xeeti xam-xam yi mu bind te jëlee ko ci Seydil Hadj Malick te foofa ci keer la wax de te izhar ku leen xam ak nañu mel ku ñu dem ba yéem la surtout ngay ku ñuul jéggi nga dayoo waaye noonu la yàlla dogal rek kon beneen tegtal la ngoog buy wane ne li ñu ne xajul ci benn waxtu defe naa gën nañ koo gëmati léegi nag fi nga xamee ni fi la ñuy jeexale ci waxtaan wi tey moo di alhamdulilahi rabil alamin bi julli gi ñëw ñu ngi ñu fekk ñuy wax ci Pape Hadj Mansour radiallahu anhu mu di koo xam ne la ko yàlla may rëy na lool bi muy yor leetaru Seydi Hadj Malick ku bind Hadj Malick mu di la tontu booba jeexalul laxdari booba laxdari yoom jeexagul li ne Seydil Hadj Malick wax lan moo tax ma mën a bind arab ni fawran fawran bu gaaw a gaaw Seydil Hadj Malick ci modeste ga mu ni ko ki la jàngal dafa bokkul ak ki ma jàngal ndax yow maa la jàngal te man dama doon jàng rek ci àll bi am nañ ci firnde bu rëy bi mu jógee Màkka dafa jaar Maroc ci Mouhamad Nadifi te kilifa la ci tariqa bi moo bind Duratul Xarida Pape Mansour jaar fa fekk mu màggat lool mu nuyoo yëglu ne góor gi ku ñu wax Mansour ibnu Cheikh El Hadj Malick moo lay seet góor gi jóg ak màggataay ba ñu indi ko ba ci moom mu féen ko ni allahu akbar mus naa gis ci gént ñu ni ma bala ngaa génn àddina gis lu bokk ci El Hadj Malick ba ñu waxtaanee mu dégg uslub style bi Pape Mansour di làkki arab mu ne ko xanaa kon yaa daan tontu lettre ya mu ne ko man la mu ne aski alaji malik ca booba jamono mu jox ko hadiyee juróomi junni moom Mouhamad Nazir fii laa wax ñu bind duratul xarida te duratul xarida ci téere tariqa bi ku ne xam ne téere bu sérieux te bind na yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaye ñu jàll ko nag ñëw ci saaxibul waqt xutbu zamanihi waxidu asrihi fadilatu cheikh alxaaj abdul aziz si xafidahu llah wa raahu nga xam ne moom la ñuy taawil nun ci ruxamaau baynahu waaw li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom xamal ko ni ko sa saxaaba yi dañuy yërëmante ci seen biir yërmande juy defar nit rek ak wàcc boo mënoon aju ca kaw lool ku ne xam na ni ku gis Cheikh Alxaaji Abdul Aziz jàngaat ko te mos naa dégg ci Serigne Mbay mii ca gàmmu Ndar mu ne Serigne Abdou mii toog de bu xew-xewu diina amee kenn ku ne indi sa kilifa dikk ñu indi Serigne Abdou dikk nga settantal te par parloo da nga gis ci moom loo yéene woon ca sa kilifa waaye ci moom la ko yàlla def
xam lii nga man du man lii nga man ndax adu ku am lii nga am baa mu xam lii nga xam du man lii nga man ndax du doon ku mayam waaw du man lii nga man ndax du doon ku
tabarakallahu Cheikh Alxaaji Abdul Aziz moomu moo pap xaaja xabib si ci la ñuy jeexale waxtaan wi ak ñaari muqaddam li ci des nag ñu xaar ko ci suivi ba tudd naa car yi incha allah détail ya dana ñëw incha allah furoa ya dana ñëw ab cheikh alxaaj abdul aziz si de moom ndaw la guddi la kenn ku ne ba nga ko dajee rek la la ca def ci sa biir defe nga ni yow rek lañ doon toggal gis naa lijaasa boo xam ne Pape Mansour moo ko ko defal Maodo si ibnu Cheikh Alhaji Abdul Aziz si moo ma ko wan Pape Mansour di ko bindal lijaasa naan ila axil kabir al xatir maa ngi ko jëmee ci sama mbokk mu magee mu mu dangereux